tànneefu député niki 17 novembre la ko war a amal yéenekaay bi niki démb Bassirou Diomaye Faye wax na nag wax na nag waaye la ca gën a fës mooy tas bi nga xamante si waat bi nga xamante ni moom na ko daanaka tekkeetul dara sàllawu

loolu loolee moom amul ndax ni ki démb teggi na ay kàddoom tegee ko ne la jël yu Ousmane ko kaw ndax Ousmane Sonko moo waxoon ne assemblée nationale dañ koy tas balaa le 12 loolee def nañ ko ni ki démb moom Bassirou Diomaye Faye moo ni jaar Sud Quotidien dissolution actée de l' assemblée nationale Diomaye nag met fin au suspense xëy ni bi nit ñi dëkkee woon dina am wala du am yéenekaay bi ne mujjee na am ndax Bassirou Diomaye Faye ni démb jël la république nag fintoon yi erreur gën a bi nga xamante ni Diomaye def na ko niki démb jël dogal daal dee tas assemblée nationale waaye yéenekaay bi ne Diomaye mooy yey ndax gis nañ ne fintoon ni gars yi bëggoon a doxe ak moom munta sotti ndax lu mu yëkkati yóbbu ko assemblée nationale gars ko déet du fi amee loolu tax nag président Bassirou Diomaye Faye ne ma jël dogal tas assemblée nationale ndax lépp lu ma diggeewoon ak askan bi dama koo a ko bàyyee nii ñu si bëri si ñoom duñ si dal dee ànd moo tax nag fintoon yi ngoyoo ngoy booti doomam élection am conséquence budgétaire ak dissolution question autour de l'engagement présidentiel lu mu ci doon ne l'observateur ne jeu ak ruse moo am dëggantaan ci dissolution boobee assemblée nationale Walf Quotidien ne dissolution assemblée nationale le coup de Jarnac benn bokk yaakaar findoori par jour la ñuy mooy ne temps de résistance nag jot na les législatives 17 novembre risque obscurité budgétaire inédit dëgg moo nar a am ci réew mi nga ni ma li am ci réew mi ku ko déggut it gis nga ko coupure générale bi nga xamante ne am na yéenekaay bi ne ab jafe-jafe dëgg moo amoon nag ci poste bu an joote goo xamante na bu réew mi ju si bëri ñàkkoon courant pax nag bu askan yëpp amoon ab singéem waaye loolee mujjee naa amaat li am ba am Cheikh Oumar Diagne marche bi nga xamante ni gars yi bëggoon nañ ko amal ni kaa tey ji préfet lànk na ba tëddi suuf laal ko ci ndodd waa Benno Bokk Yaakaar fi ñu doonee assemblée nationale boobee doon na fi léeboon ak lupeen le public yéen a kaay ne fi doonee léeboon ak lupeen nag dëgg la joomaay def nag gannaaw bi nga xamante ni na signature ndax la mu waxoon ci kaw ba ci suuf dara amu ca sukkandiku na ci waxu Ousmane Sonko ak bëgg-bëgg Ousmane Sonko fexe ba defal ko la ma bëgg moo di dissoudre assemblée nationale yéen a kaay révélation na ma ko jaa ngeen jëf ba ëllëg